ayca Omar jërëjëf euh, ajaratu léegi comme ni nga ko waxoon sànq rek mooy dañuy waxtaanee actualité bi tey jii li gënoon fës ci weekend bi nag mooy euh, Macky sàll ak Idrissa Seck dañuy njëkkee président Macky sàll ak génn gi mu génn ak El seen Assane ci RFM euh, waxtaan woowu président Macky wax na ci lu bari mais am na lu ñu ci tànn fas yéene leen ko dégteel ñu ànd ci ak Modou Tob ak ab Ablaye dellusiwaat. daal bu ñuy wax détenu politique terme bi dafa impropre détenu politique mooy koo xam ne ci sa opinion. xalaat nga wax si ni ñuy doxalee réew mi ñu téele si wala ñu boom la loolu amu fi li fi am mooy nit ñu jàdd yoon violé yoon taal yàq loolu nag ku ko def yoon teg la loxo kooku moom sa réew bu mu mënti doon la te nag bu kenn jàpp ne ay affaire droit de l'homme ak ay leneen fu mu mënti jógee ci bitim réew mën na tax ba ku jàdd yoon def loo xamante ne méngoowul ak li charte réew mi wax Eh, yoon dana da nga jàkkaarloog moom ce qui est normal donc loolu du affaire droit de l'homme du affaire euh, détenu politique de détenu aussi benn délit de presse amu fi parce que léeg-léeg ñu naan journaliste yi gis ngeen amu fi benn journaliste boo xam ne ci bind ba mu bind rek lu dul sa mbind ma walla wax ja nga nga nga def ci loo xamante ne méngoowul ak éthique journalistique mais Sénégal dëgg-dëgg ku ne xam na ne démocratie la sinon ñun bu ñu duloon démocratie foog nga ne yi am fi mën na continuer di am ci réew mi. ba yeneen cas posé wu maintenant nit ki am na sañ-sañu wax ne moom boobu gis-gis la am mais man jàpp naa ne boobu gis-gis amul bu doo loon loolu dialogue bi may wax du ko def ndax rien na m'oblige à le faire. Mhm. dama koy def parce que jàpp naa ne comme xëy na bu ñu ko defee mën na ubbi ay yoon yoo xam ne dina dina may ñeneen ñi xëy na ñu amaat. possibilité. ma woote ci du obligation. te bu ma ko defulee ñoom ñi ils ont beau dire dañu nekk candidat duñ ko nekk. duñ ko nekk kon nañu au moins rafetal yéene bi nga xam ne président daf koy am. bañ rek di tout le temps ne ah, président lu mu wax rek ñu yaakaar ne galgal moo nekk ci ginnaaw. wala dafa bëgg a faafaagal nit non. bu may woote dialogue toujours c'est pour nit ñi waxtaan jàmm am ci ak ay solution mais ñoom boo wootee ñu ne du na ñëw parce que y a des ah, détenus politiques encore une fois euh, un terme que vous ne vous n'aimez pas du tout mais naka la def pour dépasser situation boobu non bu ma wootee dañu war a ñëw parce que bu ñu ñëwulee ça veut dire que bëgguñu dialogue hmm. su boobaa mais li xale yi wax la rek hmm. euh, du ma saboté waaye gone dañ naan ku gedd sa yaay sa yaay ay boo boo ñëwulee loolu nag man mënu si dara. mais ah. jàpp naa ne seen intérêt la ñu ñëw waxtaan ak man. Ah. waxtaan ak majorité bi pour ñu xool lan lañuy ñuy hmm. dépassé ab y' a beaucoup de sujets d' ailleurs. Hmm. Euh, mu doonoon président Macky Sall comme ne nu mu waxee mu ne y' a de sujets sujets yi bari na li ñu war a waxtaanee d' abord mooy seen intérêt la baat boobu kon moom du intérêt am quoi. waaw maanaam euh, bu wootee dialogue li ñu ci njëkk a jàngat mooy ñoom nañu ñëw euh, euh, kon bu dul bu dee ni dialogue bi du intérêt intérêt opposition bi kese la est-ce que jaroon na di woote parce que du opposition bi ñoom ñoo sàkku ni nan waxtaan ak kii di président Macky Sall mais nee na bu ñëwee seen intérêt la léegi bu dee ni te dialogue ñaari koy seex bu dee ni moom amu ci benn intérêt kon lu tax muy woote moom kii di président Macky Sall ndaxte bu jàppee ni intérêt opposition bi kese la. loolu aussi lu jara laaj la beneen bi ci topp mooy euh, dialogue bu ñu koy def ñaar moo tax ñu koy def te man gëm naa ni am na dialogue peut-être dialogue à distance moom parce que boo xoolee président Macky Sall ak Sonko waxante nan mooy Sonko ca Ziguinchor dafa teg ay conditions am ne samay détenu politique munuñu di nekk ci kaso bi ba pare ñuy woote waxtaan daa am loo xam ne faw ñu lijjanti ko ba nopp ñu gont ci ngoon gi président Macky Sall mel ku ko tontu na ko seen intérêt la. est-ce que nekkul ni intérêt boobu tey jii moo waral tey jii ñuy jàpp nit ñi mooy téye naa nit boo bëggee ma bàyyi leen da ngay ñëw toog ak moom pour man président Macky li ko intérêt ci dialogue bi yëpp kenn la mooy Ousmane Sonko parce que ñeneen ñëpp mën na leen am ci table am ba mu des Ousmane Sonko nan lay def nag ba toog ak moom loolu moom li ne te Ousmane Sonko foofu tamit président Macky dama gëm ni da ko bëgg a dugal ci benn rek situation mooy bari ci nitu Ousmane Sonko ñoom gis Macky mu toog Sonko mu toog ñoom danoo jàpp ni gënul. Macky nag dafa jàpp ni loolu dina am lu mu ko may dina am lu mu xañ Sonko kon tey ji dialogue bu doon am Sonko ñëw teew ki ciy gën a gañe Macky Sall la maanaam Sonko togg président Macky Sall rek Macky Sall moo ciy gañe léegi nag pour kon tey jii mu ne détenu politique amul tey jii kenn rek laa ci tànn mooy Bassirou Diomaye fay secretaire général parti la wëral àdduna ba mu daj ñu ne la diw mooy secretaire général ab partie politique ci ab lu mu bind rek lañ ko tëj ci kaso bi ab bind bu oyof kooku bu ñu ko jàppul ndax politique lan lañ ko jàppee nanu ko Macky Sall def wala bu dee ni amul information nanu ko wax ci Bassirou Diomaye Faye kii di euh, Fadilou Keita keneen ak keneen maanaam bureau politique bu Pastef bu dul Ousmane Sonko ñëpp ñi ngi am lan teg yoon ba ci Ousmane Sonko ñooñu bundul ay détenus politique parce que ñiy yor bracelet électronique ñooñu ay détenus laa leen tuddee parce que ba tey jii maanaam danoo nekk prison à ciel ouvert rek mais lépp loo xam ne tey jii teg na leen ko mooy dañoo mel ku nekk ci kaso bi kon loolu président Macky def bu dee ni am na information yi war ne amul détenu politique loolu gëm naa ni amul Sénégal ñi fi nekk ci kaso bi ñi ci ëpp ci Pastef la ñu ne te ba ñuy exercer seen droit ci wàllu politique la leen jàpp mais bariwu ci ñoo xam ne tey jii da nga naan leen ñoo rey nit wala ñoo faat nit wala dara politique lañ doon def ñu jàpp leen dugal ci kaso bi kon ñooñu mun ñu leen tuddee lu dul ni ay détenu politique mun na am information yu mu ci am moom moo doyul. <coughs> beneen bi ciy topp mooy euh, kii di président Macky bi ko waa ji laajee ci gouvernement d'union nationale mu ni ko Sénégal amul crise politique lu tax ñu fiy def gouvernement d'union nationale mais fu amul crise politique nan nga fay wooyee tamit dialogue politique xam ne tamit moom day wax wax na li mu bëgg moom président Macky boo koy déglu li ko intéresse yëpp wax na ko mais est li sénégalais yi bëggoon dégg wax na leen ko parce que mandat bi loolu lu ñu bëggoon mu yee euh, lettuñu wala ñu firiñu ci lam ci waxoon daaw ak daaw jéeg la ñëwaat wax ñu ko alors que tey jii bu nee président Macky Sall mi ngi wax euh, ci 31 décembre wala avril wala waxtaan wu mën a seex li ñëpp di xaar ci moom pour man loolu la mooy mu wax ñu fan la jëm ak ñun ci mandat bi te man la ma gëmoon daaw ak daaw jéeg laa gëm mooy man lu lu mu gëm mooy président Macky moom dafa jàpp dafa war a nekk ak lu mu ko mën a jural ak lu mu mën a jural réew mi ci boobu la ne beneen bi stop mooy dialogue bi dina am de mais pour man bokk na ci li tax Idrissa Seck génn ci kanam dinañ ci dikk PDS delloowuñ loxo gëm naa ne dañuy dem ci dialogue bi maanaam pour xaaj opposition bi parce que Yewwi Askan mooy opposition bu radicale bi fexe na ba créer benn opposition bu nooy Idrissa Seck ñëw bëgg leen gën a nooyal léegi na bu ñu wootee dialogue ñii dañuy dem ñuy toog bu boobaa mu ne ñi demul lépp lu nu dogal te fekk wa leen ko rek daf fekk ni seen ñàkk ñëw moom mooy li ko jur moom mi ngi teg ay actam mi ngi teg ay conditions am mais aussi conditions yi muy teg Sonko tontu na ko ci mooy nit ñi mu pour ñu dialogue il faut que mu doon ñaar te jàmm ñaar a koy dox pour jàmm am nag il faut que lii am mooy sama nit yi nekk ci kaso bi ñu bàyyi leen so mu mel na makisal Sall danaan ko boo bëggee ñu bàyyi leen da ngay ñëw toog ak man booy jàngat ci ay wax noonu ngay jàngatee kon man ci wàllu politique ak dialogue bi man foofu laay dugal kii di président Macky Sall léegi nag ci mbir waxtaan bi li ma lu tax sànq ma ni wax na li mu bëgg a wax mais li Sénégalais yi bëggoon dégg waxu leen bu yeesoo troisième mandat tey jii réew mi li fi gën a nekk coow mooy coow li am ci ngor mooy coowal suuf bi Moustapha Sourang di jiite su kii bi foncier bi Sénégal président Macky Sall nee na bu jotee euh, téeméeri plainte juróom-ñeent fukk yépp coowal suuf la te bombe à la mun na taal réew li xew ci ngor ñu koy xeeb ak li xew ci napp gi boo xoolee euh, ab askan Assane Gueye laaj na ko ci affaire 94 milliards loo xam ne ab famille la yitteel mais loo xam ne askanu lébu yépp la ñor mooy boo ko jëlee ndar ba kayaar nga jël ko lompul nga jël mbooroo nga jël tey ba ci Cambérène maanaam ci weer a ngi ni dëkku lébu yëpp di yëngatu loolu ku mu tiitalul te nga nekk njiitu réew pour man xamoon na réew mi doxee parce que askan woowu askan wu juboo leen bu am solidarité mais aussi bun songandoo dara fu daanuñu ko duñ am jàmm mais pour man occasion la nga toog rassurer leen juru tabaski korité rassurer leen mais aussi dalal seen xel ci loolu ban taxawaay nga ci fas yéene am bu dee nguur gi dafa war a dellu ginnaaw bay ba mbir yu nooy mu déggu dellu siwaat mais li xew ci ngor nii képp ku koy feneti di ko jàppee lu tuuti dafa mel ne yow xamoo fi réew mi jëm mais aussi tamit xamoon lan la waa réew mi bëgg kon yooyu yëpp dafa nekkoon ay points yoo xam ne pour man le président Macky Sall da revenir bu baax a baax dellu ci waat mais aussi tamit wax li Sénégalais yi bëgg man dama gëm ne da doon wax moom li mu bëgg ak li mu gëm teg ci joué wul le jeu devant El Hadj Assane Gueye lu ne mën nañ ko wax assan mais doo jàkkaarloo njiitu réew di ko tiiñal li nga mën mooy poser ko ay questions mais aussi pour nga relancer ko moo la koy permettre mais en une heure de temps boo xool le président Macky Sall dafa nekk sur la défensive lii du ci wax wala mu tont tont bu gàtt taxaw fas kanamam après da ngay sentir waaw waaw après waaw ñu def dispatching pour wax ci lu mel noonu mais pour mu man ndéw na li mu ñu waroon a jox daal ndéw na gënoon waroon na ko gën a neex ci bisu korité bi euh, ba baal mujjee saa sooy waaw jërëjëf Omar euh, am na solo euh, pour ñu ñëw ci lu gàtt rek comme joxe kàddu gi ni ko Binti waxee man awma surprise ci waxtaanu président Sall ak El euh, Hadj Assane ndax question yi ko Assane laaj moom la réew mi doon laaj li président Sall tont loolu la opposition bi daan loolu la boog pouvoir daan tont su daan wuyu ci ay plateau même débat rek gisuñu fa lu bees man foogoon naa li ma xalaatoon mooy ci plateau bi dina fa wax leneen lu concerné Sénégal yi mais boo xoolee débat bi yëpp li ñu fi wax dialogue bi yàgg nañ ko wax yàgg nañ ci wax ci kii bi affaire Sonko yi tamit yàgg na cee wax fu mu toog danaan lii mbiru justice la du ci wax. da cee waxaat troisième mandat bi lu mu wax sama wax jotagul. Euh, bilan bi man dama xamul kañ la ab journaliste daan posé ay question di dugg ci ay bilan man dama foogoon ni xaw ma nag sama xam-xam ci wàllu journalisme mais Assane Gueye daal bi ma ko seetaanee démb man seetaanu moon journaliste bu demoon bëggoon laaj ñu tont waa dama seetaan rek journaliste bu bëggoon a ubbil ak raxas xar kanam ak raxas deru président Sall ci réew mi benn respecté wul suñu journaliste yi ci réew mi am na ay élections yu jëm jub si bëgg nañ président Sall raxas deram ci lu bëree bëri ndax fi mu toll nii deru président Sall euh, ñaaw na ci biir réew mi ñaaw na ci biir réew mu bëgg raxas yu bare bëri parce que question yi ñu ko doon posé wax nga ko kenn du tiiñal président mais bi mu accès ci troisième mandat bi léegi moom taxaw na comme moom léegi moom moo war a wax. te ma dama jàpp ni moom warut wax conseil constitutionnel moom lañu war a déglu moo war a wax kat moo warut a bokk ak ki war a bokk léegi moom dafa waxoon ay waxam El Hadj Assane Gueye mënoon ko ah président yow de lii bindoon nga ci wax ci dem ci sii Sidi Maxtaar dem fu bare fari foo xam ne man seetaan naa ko mu ni référendum bii na seen xel dal jàmm lañ bëgg indi ci réew mi ak it ay bakkan yu rot daal di fii dakk mhm. ku defati ñaari mandat dem sa yoon mënoon na koo laaj rek ni ko léegi sa wax jooju ñooñu na nga ci wax loolu foo ci toll mais jàpp naa ni daal euh, li ñu naan di dicté préparé du ko wax nag mais daal man dama jàpp nii euh, du du émission bi dara daal euh, quant à bi mhm. man su ma bokkoon ci opposition bi du ma wuyu ji looy dialogue looy waxtaan looy dialogue man yaa ngi jàpp samay nit ñi ngi may tëj sama kër di ma di di ma di ma tëj nga ni loolu jaadu na parce que jamono moo fi moo fi toll ñi may jiñ li nekk ñi ngi saaga sama jur samay ñooñ duñ leen tëj su ma dugalee recours duñ ma faale su ma dugalee ay plainte duñ ma faale di tëj samay ñooñ di tëj samay doom di tëj fu nekk léegi looy jalage koy jalageel man daal su ma ci bokkoon du ma wuy ji ni Mimi Touré def lànk ba tëdd ci suuf dama naan wuy jiw ma mhm. waaw maa jigéen waaw Oumar man de wax dëgg yàlla euh, li si bes rek mooy dama seetlu ko ci mooy que ni président ñëpp xam nañ ni mis euh, tabas euh, pardon fin d' année wala ay événement su amee laa ko doon faral di gis muy wax si si si si si médias yi nekk fii Sénégal mais vu que cette fois ci nangul na ko yenn ci presse yi nekk ci biir réew mi rek alhamdulilah puisque daf ko doon def ci médias internationaux yi li nga wax nag si wàllu intérêt bi muy wax euh, que ni waa opposition lay tàllal loxo que ni seen intérêt la man jàpp naa ne intérêt bi ci ci ci moom moomu la la la la gën a bëri parce que looy xëcc ñenn ñi rek euh, tey amaana ji am na ñenn ñoo xamante ne bu ñu jógee opposition dem ci dem ci moom ngir dialogue duñ ko ci mere parce que yàgg na ko woote ñoom ñu demoon doon wuy ci mais am na ñenn ñoo xamante ni buñ ko defee rek nit yu bëri. dinañ taxawaat euh, xalaataat mooy leçon yi bu di wax tout à mënuloo tëj samay nit ba pare wala yenn yi euh, samay àq sama samay yu bëri nga xaj ma ko ba pare di ma tàllal loxo mooy comme que ni rek nga yor paaka boo tàngal ci gaz. voilà ñoo leen am li ngeen bëgg. nag ñoom seen seen seen seen comportement après lan lan lay doon te aussi mu man bëgguma muy wax chaque jour justice sama yoon nekku ci parce que da taxaw fii euh, benn euh, fin d'année euh, ngay doon def sa sa sa sa sa kii ba noppi sa discours ba noppi nga teg journaliste yi ñu lay poser ay questions di la laaj ci mbirum justice nga ne carrément réew mi am na yenn mbir yoo xamante ne nii tey jii nii su naree tàkk su ma si waxee sax lépp fay tey buñ la laaj laajee nga ne yow man justice bi sama yoon nekku si alors que lan ngay wax voilà bu bu bu dara xewee procureur bu yoree benn dossier sax bu coow li naree bëri kan lay woo ministre de la justice ministre de la justice moomu man lay jël téléphone am ma woo en tant que président de la république donc man maay décider su fekkee loolu dañ koy poursuivre wala dañ koy dañ koy arrêter lu bu fekkee lu nar a taal réew mi la ma bàyyi kon donc moom mi ngi mi ngi mi ngi nekk koo xamante ni dafay seetaan parce que gis nañ fii bakkan ay ma ay bagage yu bëri yàqu si ay matériel jàmbur yàqu boobu ba tey yaa ngi toog di seetaan te buñ la laajee da ne carrément na justice def liggéeyam kon foofu noonu jàpp naa ne justice euh, dafay dem ak ak deux mesures en tant que président de la république nag am na yenn yoo xamante ne même dialogue sax kenn weddiwul ne président mën na ko bañ mën na ko woote mais dafay am mm, mm, manière de faire su fekkee nag da nga bëgg nit ñi ñëw wuy la ci sa waxtaan il faut yow tamit yu bëri nga bàyyi ko nit yi mën a gëm ni kat yow mii kat soo wootee nit ñi dinañ la mën a déglu mais mënu mënoo di di di di comme ni ñu koy waxee olof Ndiaye dafa abu benn moom bu muy wax naan ku gedd sa yaay aaye man tamit mën naa abu benn wax joo xamante ne nii da ngay def lu la neex ci suuf ba pare yor sa jaas yi di di di daas ci suuf ba pare soo jógee ci kaw tàllal say loxo te loolu aussi moom en tant que président de la république war na koo mën a moytu. saa waaw man dégg man li may laaj mooy émission bi kañ la. le jour de la samedi samedi ah, ah, lañ ko teg. waaw ah, lañ ko teg kañ lañ ko enregistré. est que amut émission bi ne laataan ñu koy teg mën naa am mu kadik. Hmm. Euh, waaw mën naa am sax peut-être Bassirou Diomaye Faye jàppaguñu ko woon ci enregistrement bi. non mën na ne. mën na ne. que waxuñu ko woon ñoom bëtee ngi. wala nga ay baalo enregistré Kéba euh, ci koor gi mu ngi mbattam ñuy riij ndëgg <laughs> sa ko ah, ci biir koor gi lañ ko am. Ah. non euh, bi <laughs> ah, dama lay wax rek ne la. Euh, bi daal bis bi ñu ko teg euh, bis bi ko teg daal loolu la mel noonu. du benn. moo tax pareen saay am na lu bari loo xam ne bii mën na am. am na am lu bari loo xamante ni bii euh, mën na mën na bañ a loolu quoi. mën nañu ko mettre bari na nga baal ma mais dafa am loo xam ne ci interview comme président day am protocole d' interview. Ah, protocole d' boobu nag li nga un président de la république da ñëw ñu ne ah, li ñuy waxtaan li ñuy waxtaanee kii na mais xam nga. xam nga xam nga am na sujet yoo xamante ni bi je sais que ni moo tax ma la Euh, choix bi ñu def sax ci Assane Gueye loolu ci la parce que dina respecter euh, façon bi ni muy doxee peut-être am na ñenn ñoo xam ne bu doon ñoom la mën nañu buru xalaale lii yëpp son bu di wax ñu buru xalaale ko ci biir bu boobaa aussi tamit dañ koy dagg rek daal di koy dindi ne lii bu mu kiiw ak bu mu loolu bu mu jàll ak bu mu kii léegi nag mën naa indil nit ki mer daal di après kenn ne way j'ai posé naa question sàngam ñu may dañ ko dagg après yooyu yëpp mën naa mais ak Assane bon yooyu moom xam naa du am moo tax xam naa choix bi Euh, ci Assane yooyu yëpp euh, mën na ne. waaw non c'est que Assane waxuma ne waxuma du naa daal. def na daal macha allah lim man. nga xamante ni moom lépp waaw. maanaam Assane lii la man. mais quand même Assane mën na lu ëpp lii. déedéet non non non def na ko ci. non mais Assane na lu ëpp lii alaaji def na ko ci kii quoi. Assane xatraay gi mu nekkoon ci Covid gi naan amuñu yar. amuñu teggin li liñ def ni teguñu ko fenn. waaw kañ la dal. waaw xam nga Assane kat man xawma kañ dal non léegi dal na macha mu defee ah? nii la Assane nga xam ne bu defee journal suba teel gu lay nii la nii mu def nii la macha allah nga ñëw laaj ay moo sedd rek pale nag président daal di tontu ci li nga xam ni moom mooy question yi wane na nii dialogue mais nee na euh, moom dafa ubbi buntu dialogue tëjaat buntu dialogue waaw hmm. ah, parce que boo nee ku gedd sa yaay aye <laughs> donc léegi ki lay wuyu si bu ñëwee dañ ñaa seen partenaire bi dañ naan ñëw président faale wu leen dégg nga li wax ku gedd sa yaay moo tax ñoom ñëpp ñëw nañ donc léegi bunt boobu am na ñoo xam ne dootuñu ñëw quoi mm-hmm. parce que lu tax ñuy ñëw ci koo xam ne nee na la bon ku gedd sa yaay bu ma wootee da ngeen a war a ñëw mel nii comme si yàlla digal nañu julli sax waaye <laughs> bàyyi nañoo liberté tuuti ñu am suñu liberté am na koo xam ne fee lay tëdd bu ko neexee tegale tàggam waxtu bi jot ñun nodd mun a julliwuma yaa ngi dégg ba noppi te du tere borom bi de ko defal xéewal nga xam ne moom la koy defal comprendre te borom bi mën na ko faat ci saasi wala mu xañ ko lépp lu mu am wala mu teg ko loo xamante ni fa lay jaaree dootu ko fàtte mais yooyu yëpp euh, borom baa ngi ko lool léegi yow kii nga xamante ni kii tey li nga teg ne ñu waxtaan. nga ne ba noppi amuma ci intérêt man c'est loolu moom la jaaxal quoi le fait que yow yaa ngi woote dialogue opposition woote wu ñu dialogue mais yow yaa woote dialogue ba noppi ne boo dialogue bi awma ci intérêt seen intérêt bu ñu ñëwee baax na bu ñu ñëwut tamit bon ñooy seet loolu du dialogue gis nga da nga waroon a woote ñu ne la Sonia bu dee bañ na Omar bañ na nga ne mais il faut ngeen fexe pour Sonia bu ak Omar ñëw. yónnee ndaw xam nga nga yónnee ay ndaw yoo xamante ni dañuy dox loolu. daal ne son yu ak Omar nañ wax lan moo tax ñu ñëw son bu de man de lii ak lii moo tax kii ne man ak lii nga ne lii ak lii d'accord mais réew mi jar na loolu ngir ñu wàcc kii daal ne bàyyi naa lii ak lii comprendre réglé waat li nga xamante ni bii réglé nga réglé li nga xam ne mooy mbir mi comprendre nga xam nga xam nga mbirum xam nga mbirum mbirum mbirum doole mbirum doole euh, baatle mi wax na ko benn bis daal ne président xam na li mu am ci doole. mais xamul. li ñeneen ñi am ci doole. ba Barthélemy wax na ko benn bés. daal ne man li ma gis. Mhm. bërki démb démb rek xaw ma bërki démb Mali li fa xew yàlla nañ ci yàlla musal nga gis li nga xamante ni bi xew na fa. Mhm. maanaam sous raison bi. Mhm. mi ngi tàkk. problème yaa ngi am. sa dëkk bii dañu war a fexe. ba dal am fi parce que moindre geste lépp mën naa laa rëcc donc moom tey lii mu liggéey nii yëpp li ko war mooy ci diggante bii ñu nekk nii mu xam ni tension mi ngi wër Sénégal mu fexe jàmm daal day am ni muy fexee jàmm am nag lenn la ci dialogue mais booy wootee dialogue euh, il faut tamit façon waxin bi ton bi façon waxin bi quoi bon comme si xam nga dafa am wax waxi dafa am quoi xam nga tey am na loo xam ne bu ma la ko waxee son bu bëgg a wax ak yow ci jàmm am na loo xam ne bu ma ko waxee yow doo doo muy boobu a nga ñëw ah boobu ma nañ leen dialogue donc gars yi naan way président woote na dialogue mais boo mënee nga ñëw boo mënul yaay seet waaw boo gëddee sa yaay loolu di ko xale yi di waxee yooyu waru ko wax yooyu waru ko wax vraiment donc nañu wax dialogue d'accord ñu ne réew mi kat parce que ñëpp nee nañ réew mi soxla nañ war waxtaan. mais nag waxtaan bi dafa am noo xamante ne bi noonu lay demee. mais boo bëggee di waxtaan defee ne ba léegi yaa ngi nekk position de force. man jàpp naa ne position de force bi rëcc na ko te président xamagut ni rëcc na ko. parce que am na ñu bari ñu nekk ci wetam di ko mel ni gëm nañ force bi de non am ñoo xam ne gëmuñu ko bilaay gëmuñu ko kaay wax la ci kanam tuuti am ñoo xam dañuy calculer weer yi de weer bi bu ma faye ko fay lii daal di fay lii weer dee bu ma faye ko régler kii bi ak banque bi après laay soog a génn am na ñoo xam ne ngi préparé weer bi ñu war a génn waaw parce que bu ñu teelee génn nii banque bi mën na leen képp donc il faut ñu def ñaari échéance fayeeku ak lu ñu war a def booy dafa leen ndànk rek après am na ñoo xam ne seen waa kër yaa ngi leen génn leen bàyyi leen kii ñaan non def leen ndànk deux mois kii bu ñu rek après am na koo xam ne mi ngi xaar naan bu waxee rek ma soog génn quoi mais am na ñoo xam du ñu ànd ak moom dana wéet ba mu ne demee wutoon nii hmm? ñii di non dana wéet ci kanam am na ñu bari ñoo xam duñ ko suivre ci li nga xamante ne bi moom la ne hmm. léegi nag moom bu conscient wu parce que am na ñu bari ñoo xam ni commencé nañu ñi ñi ñi ñi nga xam dañoo yàgg fa ñu jëm naru ñoo mos tey it bëgg a teel a mos suñu doon ñoo bëgg kii nekk ci télé yi di positionné wu naan non président léegi naa ñooñu mosu ñoo mos. Hmm. mais ñi dee mos ba kii nii am na ñoo xam ni ngi naan sama kër gi ma yor naa ko kii donc du ma nangu mukk kenn daa dew di ko song <laughs> gis nga nañ def kër farba ga ca fële hee naa moytu naa kii hmm. am na ñoo xam moytu nañ tele yi commencé nañoo moytu. dana gën a wéet. te nag léegi nag fi mu toll nii nag bu defee ni ba léegi mi ngi kàttan gi. loolu moom ah, pour man wax naa la ko léegi Idriss Seck nee président Sall. bu gisee ku koy menacé sax nee na ree da koy jàpp. <laughs> nee na Sonko buy menacé président Sall fu mu ko teg nee na kii am na doole jox bu ko neexoon nii la. xam nga Idi xam nga Idi dafa dafa dafa jàng dafa ne dafa ne jàng na mel ni ku jàngul. non dafa ne jàng mel ni ku jàng non Seck ki wax nii. xam nga Idi. moo fi moo moo fi wax moo mu kii nu mu yoroon. kan la euh, Moussa mu mu mu Firaaw na lu mu yoroon ci doole. bari na ana Moussa ban doole la yoroon. dara aw jooy gis doole jooy gis. aw waaw xam nga ma ne ma ne doole jooy gis. quoi looy gis quoi la xam beti loolu du lu nit ñi doon gis. Mhm. affronté wu ko. Mhm. ah ba nguur ga daanu. wallaay nga c'est loolu mooy li nga xamante ni bi mooy ne man bu tey jii. Ousmane Sonko depuis ñaata at mi ngi romb buntu prison ba ak dem ak dikk. te gars bu kii bi yëpp mooy nañ ko fa dugal. mais ba léegi mënut ta ne lan moo tax. suñu boroom la. donc il faut que ñu xam ni. pareen saay doole jooju ngay wax du sa doole. doole la joo xamante ni bi ay askan ñoo dajaloo jox la ko. ñi nga xam ni ñoo yor doole jo bu ñu gisee ni askan woowu tourné nañ. boo defu ndànk doole ja mën naa dëpp. Mm-hmm. na xam ni. na régler mbir mi Sénégal nekk ci jàmm ba nga xamante ni di man fi mu doon su réussir ñu dem ci ay élections ci jàmm ñëpp bokk bañ jàll ci élections yi ci jàmm pour man liggéey na. Hmm. waaw hmm. pour man liggéey na réew mi ànd ak dal bañ dem ci ay élections ci jàmm moom mu toog na le bokkul kay gañe gañe Sénégalais yi tànn seen président boo gën pour man bon baax na bilan bi baax na ko ok Euh, ajaratu waaw man damay faral a wax ni wala dañuy faral a wax ni même les grandes guerres finissent toujours autour d'une table muy loo xamante ni dañ koy waxtaane mais il faut mu am fond il faut mu am forme parce que dafa dañu toll ci réew mi ci benn période boo xamante ni d'accord dialogue peut-être mën na mën na mën na mën na lijjanti ko mënul lijjanti il n'est pas dit que ni dialogue boobu muy woote bu ko ñëpp wuyoo aussi est-ce que dina dina résoudre ñun suñu problème sénégalais yi man je crois que moom mi nu jiital moom mi nga xamante ni mooy président moom mooy wàccee boppam gis nga njiit n'est pas donné à n'importe qui du ko bëgg jiite Sénégal tey jiite ko du ko bëgg jiite ay nit jiite leen mais njiit dafa am looy tane ñi nga xamante ni ñoom nga jiite mm-hmm. buñ la doon saagaak yooyu sax yow sëggal mm-hmm. woote ba sa njaboot wuy si la nga doog nag waxtaan ak ñoom parce que li may wax rek du ku nekk war a jiite donc bu la yàlla jiitalee da nga koy xam am na lu mu la jiitalee. si avantage. waaw léeg nga génn fii ci mbedd mi mëstaa naa ko wax benn kii léeg-léeg nga génn fii ci mbedd mi nit xool la wax la wax ju ñaaw. Mm-hmm. mais da koy muñee ki nga xam ne bu ngeen dajee mu teral la. c'est parce que position bi nga nekk la. da ngay dajeeg nit mu taw moom ci yar. voilà da ngay dajeeg nit mu teral la. da nga koy da nga koy jëndee ki lay teral da nga koy muñee ki nga xam ne mi ngi lay teral. waaw ah, man doon naa muñ doon naa. non yow <laughs> jaru ko ah de. man moom boo ma boo ma yóbbante. parce que ñi lay teral tam ba nga tere ma commentaire. damay dugg dem ci sa. xam nga di sooy bi dugg Grand Yoff ah, bi. waa ji di ko 15 ah, vingt di ko fompal kii ba ba dab. ba ba balet. non mais comme waaye ngeen di dóorante moom ay korbañ. ngeen ngeen sax. man damay xeex ba dégg <laughs> damay xeex <laughs> waaw des fois nag dañ lay poussé ah waaw des fois dañ lay dañ lay poussé asma sama ànd ak Assane waa ji yor moto taxul nga ni saa amul moo am priorité moto la yor même bu sama moto amul kayit waroo ñëw fekk ma ci tournal bi ma am priorité nga ñëw rek ramassé ma. Hmm. ma wàcc di xeex Assane ni ma non dañ laa xam ak kii ma ne déedéet man damay xeex de boo ma tooñee damay xeex <laughs> damay xeex de. <laughs> mi ngi noonu euh, mi ngi noonu kaw kii sànq mi wax ci Assane Gueye du ñàkk leçon seen la bi ñas bala fàttee train train bi ñëw heure bi intéressé wul gars yi waaw parce que. bu ko bu ko ñu xuloo de am na ñu ko félicité tudd na ay tur waaye am na ñoo xam ne dañoo iñaan ba léegi neen woowuñu ko loolu waru ko wax ah, ah, ñi noppi kay woowuñu ko mais ñoom dañoo xëy na dañoo maandu mais boo xëyee am ñu la wa félicité nga ne waa ñoo ne waaye wuti naa ñeneen ña loo koy félicité waaw ah, kilifa la moom loo koy félicité waaw mais eh, dafa mën liggéeyam nag nañ ko nangul bu ci xajoon rapport covid bi léegi mais léegi directeur la euh, euh, rapport covid bi mënoon na ko ci laaj militaire yooyu de mooy di jës ba kii ñaari militaires yi ak 45 milliards waaw mais Omar yaa ngi yaa ngi yaa ngi contredire sa bopp xam nga lu tax léegi hmm. léegi wax nga fi ni hmm. briefing dina am ñu déroulé euh, questionnaire yi taxaw kon xam nga ni ku mel ni Assane Gueye du ko du ko jël ah. mu ngi noonu loolu la rek waaw président di wax di ca dicté préparé président booy jaar ndegam dangay am sa invité mu war a ñëw rek ngeen xaw a def benn briefing bu ndaw waxatuma laa nag njiitu réew tey loolu dañ ko koy accepté li garaaw nag mooy bul dugg fii bul dugg fii moom ah, ah, benn waaye mës na ma ko wax ne ma boo domaine sànq bul ma ci laaj na waa léegi bon ci lii la ñuy wax bon doom kii nag bul ko laal ak lii ak lii ma ne ko waaw mu toog rek ma daal dem ci loolu ñu wax ne bul ko laal <laughs> bila te waxoon na la bul ci laal bul ko laal. moom moo ma ko xaw ma ko woon sax di moo ma ko wax ne ma bon lii nag bu ci ñëw bu ci ñëw. bilan beeg réalisation yi moom yàgg nañ ci loolu. président communication moo ko dugal sa xel moo ko indi. te man loolu xaw ma ci woon dara ma ne ah, waaw lii nag mooy jamonoy attaay nan taakaay lii bu ko ah, laal lii bu ko yëgu ko moom buy def ay affaire am attaay du ma ko yëg non dane ma bul lii nag moom bu ci dugg quoi nit day wax ba pare mun la laaju ñu la ko <laughs> ma sooy bu di wax maa ngi fàttaliku en 2011 bi nga Sénégal ah à chaque fois histoire day répété wu mooy euh, bi Futurs Médias dalee Abdoulaye Wade bi ko Assane Gueye di laaj ci vice président mun ko yow sax boo bëggoon ma def la ko yaa ngis boobu dama gisoon ni Abdoulaye wadd peut na Wade moo toll noonu nag mais dama doon gis Futurs Médias mi Alsane di Mamadou di kii dañ ko doon maanaam ñett ko séq mais maywun maywun woon dara Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade di jouer le jeu quoi ni mu mel moom rek ko mel boobu nag ak bi wute na moom non non non Omar ah, ah, aussi ñu nangul maître Abdoulaye Wade que ni Wade Wade la wadd dégg na fi lu ne gis na fi lu ne mm. mais mais nag nañ ko ko nangu musul réagir ma ne dañ fi wax maître wadd bàyyil maître wadd waaw maa ko wax kenn du moom. Ah, ah. le père de la démocratie sénégalaise Abdoulaye Wade léegi. li xew ni yëpp mooma du ma ne waaw du ma ne déet yëpp Abdoulaye Wade. ah moom la. parce que moom bu réglé woon bële. kon Macky Sall du wax lii tey. bu doon bële demutoon ci élection yi kon bii du Wade. aywa Macky génn wax du Wade. kenn du Wade kenn du la kenn du Wade kay. Wade nag paaka ñaari boor la. yow yaa ko gën a nekk paaka ñaari boor te ñu ngi la koy muñal bàyyi jàmm Euh, euh, léegi ñu ñëw ñu ñëw ci kii euh, copain président Macky Sall doomu ndeyam Idi. opposition bu nooy bi républicaine. moo moo naroon nooyal gars yi mooy chef chef de chef la wax de moom la. mooy chef bi kay. ah après naa la wax mooy chef bi lu tax. <laughs> ñu ñëw ci Idriss Seck. unité bi ma gisee loolu ma dem ci Ousmane Sonko ma ne ko ku bëgg nekk chef suprême des armées. te loolu mooy président de la république doo yàq seen fête seen marche bii ngeen di def le trois avril nga xam ne day saboter feet gi baleen ko puisque bu ngeen defee marche force de sécurité yi danañ fa bàyyi entrainement ya ñuy entraîner di ko waajal 4 avril ñëw dal ci seen kaw puisque du ñu leen bàyyi ngeen yàq euh, Sénégal parce que àddina bi yëpp feet gi la ñuy gën a seetaan bu bu feet gi yàqu woon kon du ñu taxaw fii di wax àddina bi rajo yeeg ñëpp ci loolu la ñuy nekk Sénégal tàkk na Sénégal a ngay lii ba léegi d'ailleurs y a des chancelleries yoo xam ni photo mars yi la yónnee ci seeni réseaux sociaux pour wax ne ah lii kat moom xëy na mu amaat senegal nangam nangam pour yàq rek parce que du ñëpp du ñoo bëgg Sénégal nekk ci jàmm mi ngi noonu Idriss Seck euh, mi ngi noonu <laughs> ginnaaw julli gi moom tam ngoon gi jamono ji Macky Sall di wax ak Futurs Médias moom te mi ngi janoog taskatu xabaar yi euh, bis bi ñu tànn sax korite gi nag mënoon nañ ko bàyyi ba beneen bis comme at yëpp politique la ñuy wax mënoon nañu ñu feetu nag nekk ci leneen mais Idriss Seck bu daf may nduru tukkikat tukkikat yi yàgg ya maanaam yu njëkk ya boobu internet amul maanaam bu benn bu ñëwee kaset kaset yi yàgg yi non non même bu lay woo sax danaa la yónni ma Baye Waly Youssou Ndour fekk nit ñi fàtte nañ Baye Waly Baye Waly parce que sori bi ñu sori ah mooy tax ñoom du nekk ci bain bi léegi réseaux sociaux moo rek la loolu mais bu njëkk ba bu dee boo dëkkoon ak ay tukkikat wala ñu ñëw naan la ana kasetu Youssou Ndour fekk yow Youssou Ndour génne waat na fa ñetti kaset yoo xam ne dox nañ ci diggante bi resec comme li kii di wax mimi mimi dafa gëj a liggéey loolu aussi itam da ci joué lu bari bari bari bari gëj a liggéey waaw dafa absenté lu bari dafa dafa mel ne xamul lu xew dëgg-dëgg parce que li ñu doon wax ay 2007 ak yooyu terrorisme nekkatul débat bu jekk ba ñu naan non ñu ngi fëgg ci ñuy frontière def ko débat te ci moom yàlla nattu bi mu ko nattu mooy ñaanam moo nanguwul maanaam taal taal bu tëw tàkk la mais mu kenn fay ko moo fay boppam parce que ñaa saxaar su tëw a tàkk la maanaam moo moo non moo fay boppam li xamul la ma la Idrissa Seck moo fay boppam maanaam Idrissa Seck mooy lijjanti bay lëj moom cullanam Idrissa Seck kenn mosu ko def dara li ko dal yëpp moom moo ko def boppam ba nekk ci situation bi tey léegi nag mer lay wax ak sénégalais yi bu leen mënul fal bu leen fal maanaam mer mere sénégal la mere te moom boppam la waroon mere moom ah <laughs> boppam lay xulool boppam la waroon Macky def ko dara Sonko def ko dara kenn def ko dara moom boppam la waroon mere te Idrissa Seck vision ba tey ji Idrissa Seck dafa jàpp ne mooy président Sénégal de te xam nga loolu mooy dëkk bi kenn du ko taal man wax naa ak président Macky Sall am na benn kilifa bu ma woon na ma terroriste yi ña nga Mali te Sénégal la mu bëgg a taal yooyu ay Cheikh Tidiane Gadio cinq ans la ko dox ci ginnaaw ba tey jii gisaguñ terroriste réew mu tàkkagul Sandiog da nga mos a wax benn waaye benn ki chanteur américain yi star bu jàppoon ni ba léegi waaw Elvis la saa nettali ma histoire boobu mm. sa Elvis dafa dem ba yëgut ni moom siiwatut xewi na Elvis di fanax fanax mais ñu kéréel ko benn virtuel boo xam ni buy génn gars yi dañ kii di signé ay autographe te ñoo ñëpp kat waa ji dañ leen a fay de pour moom siiw na benn waaye ñëw ne ko ba nga xewee yàggam ne ko dañ ànd génn waa ji génn nag moom Elvis di dox ci mbedd mi kenn xamu ko nekkate xewi na bu yàgg Idriss Seck foofu la ne mooy Elvis mooy Elvis bu senegal waaw Elvis ah, ça mun nga kon di ah, macha allah Omar mm. gis nga Idi dégg nga ko li mu wax fi mm. nee dama ñëw ne la arrêté leen seen yi dégg ko li mu wax wóor na yàlla waxee ko nii déedéet parce nga ñeme naa ñëw ci ay kilifa naan leen da ngeen di taal réew mi. non mooy président noonu la ñuy noonu lay waxee ay kilifa ñeme naa jàkkaar Ousmane Sonko di ko wax lool. ñeme yéen ko ci bunt bi mu wàcc ci càq-càq. ba noppi naan ko arrêté leen seen yii. nee na na kenn du fi taal réew mi. waaw dëgg la loolu ñeme na ko yow yaakaar nga ni loolu loolu loolu mën na dugg ci te xam nga la mooy problème idi mu di ko wax amul problème mais mu defee ni mën naa dugal loolu ci bopp nit ñi boobu la Idy am problème moo tax président il faut ñu xoolaat Idy ban saaru nit la ak fan la toll maanaam gis nga Idy wóor na yàlla politique bi da koo raw a raw a raw a raw c'est que Idy man yoromuma de mais ñi ko topp di lang-lang yi naan oui le président Idrissa Seck a xam nga avec sa vision te idi visé wut lenn lenn moom moo fi taxaw jébbalu ne vision waa ji romb na jam ñaajo te moo ne woon jam ñaajo la yëpp sacrifier boppam idi dafa wax ay kàddu yoo xam ni moo ko non vraiment ñii may nekk ñoom ma jigéen ñii non triste nag non parce que xam nañ ni buñ naan Idrissa fu mu dëkk ñu naan Thiès te train bi bàyyi na ko bu yàgg. non train bi moom moo moo dëkk ci wetu gaar bi raté train bi ba kaar bi di corne néew fa. mu naan ba saxaar ga yuuxoo. Ouza mooy Idi mooy chef de l'opposition. billaay non da maay chef de xam nga moom dafa toll ci maay. dafa war a xaar ñu ne ko yaay. <laughs> parce que chef de l'opposition du lu ñuy xëcc naan man dañ naan la yawa waaye dégg ko li mu wax man chef de l'opposition maay chef de l'opposition su ma neexee ma wax ko man maay chef de l'opposition bu neexee kii tey mu wax ko nu mu tuddati euh, euh, Thierno Bocoum bu neexee mu ne maay chef de l'opposition kenn xëccoo ko ak ah ku koy xëccoo kan moo xëccoo chef de l'opposition lan la àndal bi ñu yëgee ni Ousmane Sonko nekk chef de l'opposition lañ ci doon wax joxe nañ ko amu ci dara amu ci dara. lu dul ay maanaam liñ ci am mooy lii dugg kaso tëj kii ñuy jaay bracelet di def kii di wut nuñ ci génnee lu ñu kii ñu ko ku ñu xam ni Pastef nga ñu jàpp la loolu mooy mbirum chef de l'opposition yow dugg ci nguur gi nuuru ci lem gi ba génn <laughs> maa chef de l'opposition <laughs> jërëjëf Omar euh, xam naa waxtu waa ngay dem en tout cas man euh, idi moom ba ma Abdoulaye Wade la gën a ci àddina <laughs> te li ko naqari yëpp li ko Omar wax boo ko teg boppam da doon muusantu muusantu ba génn géew mi naan ana géew bi fecc ba génn géew te yëgul xam ah. nga Omar man euh, Idriss Seck maa ngi ko bàyyi woon xel euh, ba pare génn ci moom yàgg na nag ba may génn ci moom mooy bàkk ak màkka ja ba mu taxawee ni yonent bi traité comme kaw-kaw ak lam waxoon ni arab yi bu ngeen bëggee ma wax leen fan la bàkka nekk na ngeen wax araab yi ñu toog pour juboo xam nga Idriss dafa yàgg ci li Sadio wax maanaam bong bong lu bëgg teg ay diil toog leen ma wax lii ci ñoo xam ne yow imaam ba ngay toog di waxal moo la gën a maîtriser alquran xam nga dégg naa benn imaam dama jum su ma jumul mooy ki nekk dégestive yi al amin mu ne imi bu fekkoon ne du fekkoon dafa dégg alquran jàng ko kon du doxale nii muy doxal xam nga idée idée ak imaamu grande mosquée bi mu jigéen mu baal ma soreewuñu ay mbir maanaam li leen jamono rawee dafa bari ah, waaw xam nga imagine nit ku jàng ñu toog nga toog taabul de ñu lay xaar di la déglu ngay fàttali histoire yoo xam ni man sama doom ji mujjee juddu sax xam na loolu lépp ci affaire alal jeeg diggante mag Abdoulaye Wade ak nam wuy jeeg la ci des yëpp nga ñëwaat ba ci tuuma diggante sa Seck ak ki kii usman Sonko ak Adji Sarr nga xam ne tuuma la yow ba léegi nga teg sa tànk ci diw moo def nee naa ko nangul ma ma yóbbu la ci diw te tuuma la ñun la njaaloo danga war a fekk kuur gi ci gënn gi action bi ba pare waroo nekk kenn dafa ngeen war a nekk ñaar wala ñett Idrissa Seck amul ci loolu dara ba léegi mi ngi confirmer ak di continuer bu ñu ko waxee mu ni justice dafa am ak problème ak xale bu jigéen waaye waxoon naa ko ne def naa nga mën a xam nga kooku mënoo ko tuddee nit ko jàng ko ragal yàlla Idriss daal man euh, génn naa ci moom. Ah. waaw man génn naa ci moom. waaw man man man man man euh, euh, kii Omar si vision bi laay wax parce que ñàkk vision. mooy waral démb barki démb bu ma seetaanee président Sall si lay soog a comprendre que ni Idriss Seck amul vision parce que yow mënuñu la woo mënoo ne président bi moom moo ma woo depuis 2021 xaw ma jamonoy Covid bi pour ñu ñëw ñu waxtaan nga ne bi ngeen di waxtaan da ngeen waxtaan uniquement pour ngeen liggéey kase mais diggante woo leen dara parce que moom il croyait que moom 2024 peut-être président Sall daf koy jox ngay pour mu mën a dem bokk bokk bokk élection mais dégg ku dégg déglu président Sall nga xam ne ñoom ñaar seen i wax dafay am contradiction émission chaque jour xaw ma Idi moom mooy def erreur xaw ma président bi moom mooy def erreur parce que seen i wax nii la parce que yow mënuloo nit ki woo la ba noppi amuloo si benn résultat nga toog ba tey ne waaw damay nekk candidat moo tax président bi wax na ko sooy dem waccal ma li nga xamante ne nii majorité bi moom moo ko moom mënuma mënuma mënuma laa tàllal loxo ba heure bii nga ne ma damay dem ma di la téye kon donc moom moo war a xoolaat bu baax euh, taxawaayam te saa mi ñuy tooj ñu tuccee si ay nit yu am ngor lañ certes que nag dëkk boo dem rek am na ñenn ñoo xamante ne nii il faut ñu jéem a sewal wala tuuta waa dëkk bi mais moom tuuti nag ci mu baal ma. ñu tëj non Thiès fa la kii dëkk ah, ñoom Lat Joor. voilà ay ma kii ñoom ay. Euh, ñoom kii Massiré Issa Dieye Issa Dieye Fatim Penda la sukaabe ay jàmbaar ñu kay moom moo yor Macky ah, moom ci Abdoulaye la doon wax te lii yëpp Abdoulaye Wade ko indi xam nga xam nga xam nga ay élèves Ablaye Wade. bàyyil Ablaye Wade pourtant traité na président bi comme nit koo xam ne daal da ngay day créer histoire rek mu yow li mu tuddee xanaa gisul li mu traité Ablaye Wade Idriss Seck Idriss Seck dafa tuddee woon Ablaye Wade comme kuy wax loo xam du naka sudul noonu la rek. Amata Diar. yaa ngi waroon ñëw daal ci kaw ñu ñu daaneel ci Idriss Seck mi ngi doon kon di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp. jàmm waat am na bay rek mën nañu leen bàyyi woon rek ah, ah. waat. Idriss Seck ak Macky damay damay bu ma gisee bu ma gisee des fois ci karaaf yi ñaari coxeur yi jàppante xam ne des fois ñu jàppante jotewuñ dara ah dañuy xaar ku leen àtte pour ñu joteeg yow Sonko bu mu leen àtte ajaratu kàddu gaagoo ayca ñu ngi lay remercier bu baax a baax moom ma Omar bun Xataat Gueye lu ay di njàmbat la woon li nga indeeti amatina solo